waaw pàcc pàcc bi la police yi jàppee mu demee. police yi. waaw ah. sama booy naan ñëpp ñoo ko gisandoo booy bi nga xamante ni moom la gars yi jëloon def ko comme bouclier. sans temps yi yëpp depuis barki dem ba léegi gars yi ñu ngi naan dafa gaañu dafa dee affaire yooyu noonu alhamdulilah mi ngi noonu dara jotu ko mais man li ma mënta comprendre mooy ci genre situation yu mel nii nga xamante ni dëkk bi genre kenn nekkul si jàmm quoi naka la si yenn nit yi mën a profité pour di joxe ay fausses informations quoi. day gën a suusalee xool yi day tax nit yi dañuy gën a mer te du ko jar donc voilà baax na ñuy jaarale information yi baax na ñuy wax li nekk ci dëkk bi parce que képp ku si noppi hypocrite nga naafeq nga et ku ku seetaan sa dëkk nga complice nga mais nañuy joxe information yoo xam si ni dëgg la parce que réseau yi dafa vaste te lépp loo ci xas boo wax rek après day wër quoi alhamdulilah ñu ñaan moori yàlla na fi yem que si jàmm a baax jëmm jii ma affiché ci kaw du policier comédien bu rëy la euh, nguur gee ko jox tenue pour mu génn jàmmaarloo ak population bi mësul def formation du policier du dara xamul sax na la ñuy nekkee policier euh, ma ma delluwaat ci commentaire yi ci vidéo bi ñu defoon démb kii euh, maa leen ëpp jot maa leen gën a réew dinaa leen tontu benn par benn di ngeen dégg daal tey daal démb ak daal di Massa Yaye ñi ànd ak Macky Sall ñëpp. kii nee na la moo tax ñun ñu nekk extérieur wàcc ñu sur le terrain lu dul nekk si ginnaaw téléphone yi di wax rek sëñ bi ñun ñu nekk extérieur ñoo la tane parce que ñun nooyi wuñu lacrymogène Macky Sall bu liggéey bu liggéeyul ñun dañuy am xaalis mais mënoon nañ def ni animateurs yi nekk Sénégal tiktokers yi nekk Sénégal ak célébrités yi nekk senegal jël nopp bi taf ko si ñun mais defuñu ko nalaw sax talluñu ko lekk sax talluñu ko te moonte de manqué wuñ ko ñoo ngi lekk ñoo ngi nante ci climatiseur la ñuy tëdd te ñu ngi ci dëkk yoo yu gën a neex ci Afrique amuñu benn raison pour di génn di xeexal senegal dafa fekk ne dañoo fier nekk ay Sénégal ay ay moo tax ñuy génn di xeexal waa Sénégal yow naa fekk nga ndax yaa ngi biir Sénégal te lijjantiwoo li xew sa réew yaa ngi naan sa yoon nekku si moonte de sa yoon a ngi si ndax Sénégal nga juddoo fa nga màggee fa nga yaroo ba toll ni nga toll nii bu du woon Sénégal doo mel bàyyi leen naa fekk bàyyi leen seytaane man mënoo leen ma déstabiliser ba duma wax lan moo xew ci biir réew mi te bu ma nekkoon Sénégal ku ma xam xam na ma si fit ak jom ak fierté dinaa génn dinañ ma rey comme ni ñuy reyee samay frère ndax dinaa xeexal sama réew ba rendre am avec fierté nag avec fierté bàyyi leen naa fekk te ngeen génn xeexal seen réew seule la lutte libère seule la lutte libère Antoine ñàkk jom yow nga ne da ngay ñëw rapatrier sénégalais yu nekk extérieur mais ñoo ngi lay sénégalais am dëj ñi ngi rey nit ñi génnoo mastawu nit ñi si loolu de nga génn naan euh, ñiy joxe information ñoo tey joxe ay information lu la naqari ñëwal nga def ko ci ñoo ngi lay xaar yow moom Coura Macky amoo jom amoo benn jom dugg naa sa page jox naa la sama adresse nee naa la Dubai laa dëkk business bay laa dëkk ñëwal ñu kattante ndey ba fu mu yem neex yow li nga nekkee ni sénégalais ñoo la si bàyyi kenn faale yow sa jour nit ñi saaga sa ndey danga cee mën dara dangaa mën dara ci saaga yi la nit ñi di saaga fit bi ngay jaay amoo fit ñoo la ëpp fit gën la nekk xale gën la réew Sénégal dinañ ko redresser ba mu ba mu ba mu jub xocc bu ci ay seytaane raxee tam faalewuñ te ñooñu mënuñu ñoo ñu ñoo déstabiliser dinañ xeexal suñu réew ba am la ñu bëgg incha allah ba benn information ñoo ma joxe ndeyam. what's up gars yi tey on va parler de cet homme gis ngeen kii mooy le pire président de l'histoire du Sénégal le pire ki gën a yées. gars yi bilan catastrophique gars yi xalaat li ko dalee euh, Senghor ba Abdoulaye Wade li jot dee li jot a dee si nombre de manifestants gars yi kii ak régime am dañ ko doubler voire même dañ ko tripler tey on est le 4 déjà de 22 mais le gars il s'en fout génnul waxul xam genre mel ni moom lui il s'en fout totalement soit man xaw ma silence bi nopp noppeem bi mu noppi. c'est de l'arrogance de la wala soit dafa jàpp ni euh, que booy voilà fii quelques jours booy dañuy arrêté affaire bi day normalaat ndax nga sa bopp instant bi lii xam nga fu mu commencé xam toll nañ ko mais xamuñ fu muy jeexee ministre yoo xam ne dañu mës a wax dëgg militaire boo xam ne yéen seen i force de ak seen i nerf yi ñooy tiré si nit ñi te nombre de morts yëpp c'est sous son moom mooy l'unique responsable moom ak gouvernement am nit koo xam ne doore rek doore ak doole doore ak jaay doole kese kese nga xam yow kese ak silence noppi ñun ñun si régime Macky Sall lañ xamee oppression maanaam ñu noot la ñu noot la maanaam privé la say liberté ne la yow amoo droit def lii amoo droit def lii ku wax ñu dóor ku wax ñu jàpp si kaso bi ku wax ñu rey rey rey si manifestation yi man man léegi man Sénégal ma damay damay jàpp ni on est ngeen baal na mais Afrique centrale lañu nekk wala affaire yooyu noonu. ministre de la jeunesse boo xam ne heure bu ñu ko tàllalee micro moo wax ay day wax ay ñombe heure bu ñu ko tàllalee micro moo ñu médiocrité mais ci benn côté je lui dis parce que moom moo tax ba jamono jii nii jamono jii nii Sénégal fu mu woote ñu booy gi dañuy génn xam ni ñun instant bi nii on est fiers de sénégalais dañuy génn xeextu suñu réew loolu ci régime kii la nga xamee parce que moom moo yellool suñu bien vrai euh, Sonko moom moo nekkoon détonateur bi moom moo ñu woon ne leen booy xool leen fii yeew leen sigi leen fii nii mais jamono jii nii Sonko dañ koy jël tagee ko ne naka champion dallul repose-toi instant bi ñu nag lom la Peppa Pig Ibou Ndafa parce que du ñu seetaan nga ñuy privé de liberté yoo xam ne moo gën a primaire droit à la collectivité maanaam yow ban droit nga am yow ak say ministre nga ne da nga ñuy privé connexion da nga ñuy privé xam li xew ci réew mi ak si àdduna ci ban droit démb li xewoon suppeekoo ba suppeekoo bi géejuwaay yow boo ko fekkee woon da ngay bàyyi àdduna bàyyi àdduna booyee dañuy dugg si biir di xeex di jamante si biir pour jël ay provision te wóor na ma ni boo toppal benn booy ne ko booy yow li nga jël si mbuus bii nii mës nga ko lekk sa àdduna danaa la mës ma kaa lekk sama àdduna grand. Macky Sall dégg bu ñu leen bu ñu neexee nañ la jàpp vrai vrai góor nga danga nga gore buñ la neexee nañ la jàpp. xoolal yaa fi gën a nekk artiste yow yow la ñuy topp neex la naqare la dip yaa fi nekk xoolal lii du sa première fois yàgg nga koo def yàgg nga wàcc sur le terrain di manifester ak gars yi billahi ma c'est la première gis artiste boo xam ne mu ngi wàcc sur le terrain xeex ak gars yi dip vrai guerrier nga Sénégal ñu ngi sa ginnaaw courage à bu ñu dégg maa ngi gis information ñu naan dañuy jàpp dip bu ñu la jàppee tamit dina la caabi dina la féetee si ginnaaw frère yow bokkoo ñu la war a jàpp yow yow deret gor mooy daw sa yaram barki alquran doomu grand du ragal du tiit frère courage à toi man gisuma artiste buy wàcc sur le terrain xeex a gars yi sauf yow gars yi dib à partir aujourd'hui mooy suñu rap tey mooy suñu musicien tey billaahi muy xeex muy muy nakari moom la muy metti moom la mu ngi neex dib la gars yi dib yaa fi nekk barki alquranu karim kii gars yi may leen kër dib maa ngi gis message yu sirlé ñu naan dib dañ koo jàpp dañ koo jàpp dañ koo jàpp amul problème fii bépp buy gor rek sa place prison la nekk